الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ne ci turam ak ci santam di leen wax ne ci ndigalal xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass ci ndigalal imaam Cheikh Tidiane Alioune Cissé ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mi nga xamante ne mooy représentant xalifa bi ci Ndakaaru dañ leen di yëgal xew-xew diina boo xam ne tey ñu ngi koy amal fële ca Bambilor muy pose première pierre jumaa biñ bëgg amal le 17 mars seen ndigal ki ñu koy defal di Seydi Imam Mahi Alioune Cissé mi nga xamante ne mooy porte xadara bi ñu cee oo ñëpp fu waay mën nekk di wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi woo rawatina képp kuy taalibe bàyyis foo mën nekk ñu ngi woo rawatina ñi nga xamante ñoo dëkkee Ndakaaru bawul kenn ñu ngi oo waa Bambilor yi yëpp nag kilifa diine yi kilifa aada fa nekk yëpp ñu leen di ñu ngi woo Cheikh Ahmada Tidiane Ba suñ xarit di xaritu kër gi ñu ngi oo monsieur le maire Ngagne nga xam ne barab boobu tey moo ñu ko jàppandalal benn jot ko di ko ñaanal yàlla yàlla fay ko ñu fas yéene def loolu le 17 mars 16h incha allah euh, ñu képp kuy taalibe nag ñu ngi lay woo ndax Baay moo ne wa biya yurfau jawrul azimu wa innahu bi faydi yunaalu diinu rafan maari ñu yëkkati diina rek moo tax a jóg Cheikh Ibrahim képp kuy taalibe ñu ngi lay ci loolu di wax ne yàlla ñu ko yàlla fekkaloo jàmm yàlla defar ñu ci ndam ci zaahir ak ci baatin eh, ñu ngi oo ñëpp képp kuy xarit ngay soppe ngay jullit soo gisee lii rekk mooy sa oote